seen liberté sonal opposition bi Ousmane Sonko ñu dugal ko si kaso bi ba noppi ay politiciens yi nga xamante ni ñu ngi leen di teg loxo te jaarul benn yoon le quotidien ca jamono jooj ni Pastef ñu ngi werante ndaxte El Hadj ak Ayib Daffé ñoom nag ñu ngi rejeté proposition wu Diallo Diop ni Pastef foog mu am plan B ñoom nee na Ousmane Sonko mooy seen candidat tey mooy seen candidat ëllëg ci jamono jooj nag Serigne Habib Sy Dabakh ci biir le quotidien yéene kaay di ñaan Ousmane Sonko ngir mu bàyyi grève de la faim bi Antoine Félix Diome di ministre de l'intérieur ak Khalifa Sall woon démb ca Touba yéenekaay yu bëri xëye ka bokk na ci Vox Populi l'info yéenekaay 24 heures enquête ak réew mi quotidien ubbil journal bi di Vox Populi Antoine Diome di jëwriñ bi ñu dénk wàllu biir réew mi ni téeméeri engagement yu nguur yi jëloon juróom-ñeent fukk yi ak ñaari respecté nañ ko te dinañ indi ñeenti junni ak juróomi téeméeri policier ñaari junni ak juróomi téeméeri gendarme ngir kaaraange Touba dispositif bi sanitaire bi noppi nañ Sénélec jumtukaay yu bëri dinañ ko fi indi ngir amal màggal gu mucc mu bañ am benn délestage réew mi ngi doxal ba noppi di tagg boppam lée fa yéenekaay ni Antoine Dédoy yi am na ay manquement yu bëri ci magal gi lee ndaxte am na yenn yoo xamante ni sax mën nañ ci teg suñu baaraam Serigne Ousmane Mbacké di coordonnateur comité d'organisation bu 18 safar moom nag mi ngi ŋàññ bu baax yéex-yéex yi nga xamante ni am na ko ci liggéey bi nga xamante ni war nañ saafara mbënd mi foofee ca Touba lof si yéenekaay di dëggal léefu yéenekaay ni akay ah Touba moom mbënd maa nga fa ña nga xamante ni nag ñoo yeewoo Touba ñoo si ñoom fësal seen kàddu ci l'observateur nee na nag amatuñ fenn fu nga xamante ni mën nañ faa toggee te màggal gi rek ay fan moo ci des am na ñoo xamante ni nee na seen dund gi nga xamante ni dañ koo dencoon lépp ndox mi yóbbu na ko ca jamono jooj nag tribune yéene kaay di xam ne ni nguur gi ngi tëb a dal te problème mbënd mi ci réew mi rek mënu koo saafara journal bi ne juróom-ñaar téeméer ak juróom fukki milliards dugal nañ ko si mbënd mi te ba léegi amaguñu benn résultat journal bi sampub laaj ni ana njiitu jëwriñu Amadou Ba mesure yu nga xamante ni rek jëloon na ko direct news ni mbir mi moom nañ waxante dëgg mbir mi échec la ndax mbënd moo amaat ci réew mi rawatina Touba le grand panel li jamono jooj nag njiitu réew mi Macky Sall ñi ngi koy xaar ca Touba ëllëg Walf Quotidien dikkaat ak ñun ci nitu politique yi nee na ñoom nag ña ngay doxal di amal ay tournée nationale visite de proximité neena na nag force politique yi ñu ngi actionné bu baax Vox Populi dikkaat ak ñun ci guerre de positionnement bi am ci biir parti bi démocratique sénégalais te ñoom sax seen candidat wóoragul ndaxte am na ca Ndar Kolda Thiès Louga ak Géejawaay que yor yor yéenekaay ñëwaat ak ñun ci juróom benn jigéen yi nga xamante ne ay patriote lan te système bi dugal leen nungu siin bokk na ci aji ndaw mi nga xamante ne architecte la Fatou Fall di juriste journaliste Pascaline Diatta Fatima Zahra Wague ak Ami Dia laas yéen ñun te ndaje mi nga xamante ni doxoon na ci diggante étudiants yi recteur Ahmadou Ali Mbaye ak Omar Pène mi nga xamante ni moo di médiateur bi ndongo yi ci kanamu recteur bi ñoom nag dañoo waat ni atum ren dinañ def seen kéem kattan ba université jàmm ak dal am fi ba nu amal seen njàng ci anam yu mucc ay le témoin yéen kaay ca jamono jooju mu ñëw ak ñun ci location bi nee na nag loolee échec total la liñ ci doon xaarib amuñu ko ay jafe-jafe rek lañ ci sénégalais yi ñoo war a jël li nga xamante ni moo di seenub droit ba noppi exiger ko moor Gassama di économiste nee na mesures yi nga xamante ne jëloon nañ ko ci wàññi côté location bi nee na mesures yooyu ñoo baaxul dara dafa efficaceul dara ñu wax ci sport ak stade yéen saw Saudi League Pro Al Nasri bu Sadio maane moo doon dajek démb Al Shabab bu Habib jàlloo équipe bu Sadio Mané bii di Al Nasri ñoo dóor ñoom Habib Diallo ñeenti bal ci dara Sadio Mané sax dugal na CAN 2024 match bi nar am juróom-ñeent fan ci weeru septembre mu nar dox si diggante Rwanda ak Sénégal Pape daaf ñoo nar a yóbbu équipe bi kilée di Aliou ak professionnel yu bëre duñ ca dem ñu wax ci basket Mamati Meng nekkoon fi Lyon mi nga xam ne ne basket bi dafa bëri ay jafe-jafe lool sax ñu jeexal ko ak sunu lamb Modou Lo Ama Tapha Tine Eumeu Sène seen face à face ku njëkk nan ko amal ci Gambie juróom-ñeenti fan ci weeru septembre bii di ñëw ñu wax si bëri Tapha Tine Eumeu Sène Marley Mbaye Gouy Gui ak caatu Daouda Fall boo moytul dinañ bëri fukki fan ak ñaar ci weeru novembre bii di